magarawarki Yerine Ibn Abbas, Hacer bin Hüseyin, Mesut Kafim Üniversitesi'den olsunlar. Ñoom ñeemi yépp ñu toxtalaate ñu leen toxtalee ci kaamil bi. Ron na ci ngëri li xam ni la akhbaru kasira. Abu Hubayb jëlee na ci yang bu Abbas, neen loo gis wasal ak téere bi min laay mu ngi tukkee ci yàlla alxasiis yàlla mi daa aji not alxalim mi daa aji xam xaafiri sëm yàlla mi daa aji jéggale bàkkaat wa qaabili tawbi yàlla mi daa aji nangu tuub saddidil xiqaabi yàlla mi daa aji tat ji mbugal si tawli yàlla mi da boroom kàttan ibnu habbaas mu ngi ko firee saxatu maanaam yàlla mi da boroom yaatu ak koomal xataata firee ko nexam yàlla mi da borom xiwal ibnu seydi kat fi de ko kàttan ñu ne xaafiri sëmb aji bale la bàkkaat li man lam yëtub ki tuubut wa xaabili toobi aji nangu la tuub li man taaba nee na xibaar boobu wérut laa ilaha déet benn buur boo yooyu jaamu ci dëgg illaa huwa ndare moom ilahi jëm na ci yàlla rekk jëmut ci keneen almasiru mujjuwaay bi laa ilaa xayrihi taala la istiqlaalan wala istiraakan su boobaa nag yàlla dana fay minal mu téxe wala xaasi ku ne la war a fay nee na laaye yi nag waadee ngi ci arajëhab dum no xam miir xan yësi dum no lasam nee benn waay boo xam ne dafa nekkoon saam bari doole trop yoneen Omar ibnu Xattaab nemmeeku ko laaj ko ñu ne ko dem na dem naa dema dem ba fi mu ne day màndi Omar dane ko bind leetar ne ko min Omar ibnu Xattaab ila fulaan ibnu fulaan salaamun aleykum fa inni ahmadullah ileykumullah allasi laa ilaaha illaa huwa bismillahi rahmaani rahiim mim tansilul kitaab min allahi al-aziiz al-aliim qaafiri zambi wa qaabili tabi si tawli la ilaha illa wa al masir dal da tampé lettre ba wax nak kim ko jox ne ko bo demé nak boko féké mu mandi bako ko jox mu ñël ko bam huri Omar nak bi mbindé lettre bi mo wax nak ñim toga ne la ñun ñepp nañ nañ bok ñaanal ko yalla nangul yalla def ko deppele ko defal ko tawfiq mu tuup te nangul ko tuup ba lettre ba ñewé mu jang ko mu ah suma borom dé dal na ma njëggal wattuloo na mo mbugalam dañu nak de baamu lulu da baamu noonu be joy dal di genn ci lam neewon ba Omar yegge tubam mu ne nu mel nii nak de len ko def ci sen mbokk yi ku ci gis mbokk mo xamne dafa tarxes na ngeen ko jubanti te jappale ko ñaanal ko yalla yalla nangul ko tuub bu len nek de ay ndimbal yo xamne fa ngeen de dimbalé setan ci seeni bokk ma yu jadilu du hanté mu ngi wàcc ci ku ñëw Haris ibnu Qays as-Salami ci ñenn ñi daan reetaan yónnent bi la jiddaal bii nag bi mu ci namm jiddaal bil baatil mooy ayibal laaya sama borom yi ak bëgg nëbb dëgg ak fayleer ak yàlla gi maa yu jaadi lu du dàggante fi ayatillah illa lasina ndare gaa yi nga xam ne kafaru weddi nañu yàlla falaa yaxrurka bu la war taqallubum seenu wayaase da wëreelu ci àddina bi fil bilaadi ci réew yi kasabat weddi woon na xablawum ci seen njëkk xaw xawmun noo taqallub mooy jógee ci réew mii dem ci réew male lum na ma nag ci bil bilaat bilaadu saam wal yaman ndax laaya bi mu wàcc kéeféeru Quraysin te foofu lañu daan wëlbatiku ci commerce mooy li ilaa fi qurayshin ilaa fihim rihlata sitaa'i wa sayfi wala saaba ak kuréel ya min bëri ñi dikk ci seen gannaaw wa hammad hittewoo na kullu ummatin bépp xeet bi rasulim ci yónnante ba yàlla leen yónnoon ci ñoom hittewoo nañ li yàqu soow nañ ko napp wa jaadaloo ñu dàggante yi bil baatili ci neen ci loo xam ne amul dëgg lii di xiloo ngeen nañu dañal bii ci neen googu alxaq dëgg ak yàlla gi sax nee na fa axastoo ma napp leen ma it ci xaalag yi leen mbugalam faa gàggal fa kay fa kaana naka la nekkee xab yi suma mbugal wa na ko noonu xaqat la xeeyee kalimaatu rabbika baati sa borom bi xalal la seeni ci gaa yi nga xam ne kafaru wi dinañu yàlla baat ba mooy lan annahum na ko ñum asxaabu naar ñoo di woy ñooñ safara ñooy dañ boromi safara ñooy takkook safara àlla seena gaa yi nga xam ne wala ña nga xam ne yamiloo na danañu yenu alxarsa gis mun hasimun bu am ay taxawaay al kursi ak li nekk suufam yépp ñu ñu ngi mel ni jaaro jaaro boo sànni ci fu àll ñi nga xam ne danañ xeru xaras jëlee nañ ci axraja abawayhi laawam nu marduwayhi bi sanadin sahiih an abi hurayrata radiyallahu taala anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ushina lii an uhaddisa an malikin qad maraqa rijlaahu larda saabiata suuf laa wal xarsa ala man ki bay yàlla jox na ma ndigal ma waxtaanee benn malaaka boo xam ne ñaari tànkam dem na ci suuf yi juróom-ñaar xarasan ko toll ci ñaari mbaggam mu nga naan subhaanaka ay na kunta wa ay na takkoon wa axraja abu daawud wa jamaatum bi sanadin sayi an jaabir bi lafsi ushina lii an uhaddisa an maliki min malaikatillah min hamalati lharsi maa bayna sahmati usnihi ila haatiqi masiratu sama mi ati am li dalee ci ker noppam ba ci joggareem doxob juróomi juróom-ñaar téeméeri at la xamalatul xars nag ci li nalaasaar yi dañ wax ne samaniyatun la axraja ab ibnu munsi bu abbo seex wal bayhaq fi si bi limaan an haaruna na rabaab nee na xamalatul xarsi samaniyatun yatajaawaboona bi saw bin raxiim yaquluuna arbaatu min sumaanaka ñeent yi ñu nga naan subhaanaka wa bihamdika ala hilmika bada afika wa arbaatu minum subhaanaka wa bihamdika ala afika bada qudratika فعرج أبو الشيخ ابن أبي آت من طريق أبي قبيل أنه سمع ابن عمر رضي الله يقول حملة الحرث ثمانية ما بين موخ آدم إلى ما أقر عينيه مسيرة خمسمائة عام kenn ku ci nekk sambatam bët ak fi sa pegg bët bi ne doxab juróom ñaar juróomi juróomi téeméeri at la waaye nag nekk na ci lenn laasaar ne arbaatun al yawma wa yawmal qiyaamati la ñoo nekk samaniya araja abu seyqan wahab قال حملة الحرس أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدوا بأربعة آخرين am na ci malaaka moo xam ne melow nit la mel mooy tinu doomu aadama yi ci seen warsag yi am na malaaka moo xam ne melow tan la amee mooy tinu njanaaw yi ci seen warsag yi am na malaaka moo xam ne melow yëkku nag la amee mooy tinu bàyyim ci seen warsag yi am na malaaka moo xam ne melow gaynde la amee mooy mooy tinu ndog menti fi arsaqim bi ñeenoon ak xaras mënuñoo jóg ñu rukki rukk cëppeelu nërmeelu ci yéen wuum yàlla saleen nag laa hawla wala quwata illa billahi ñu dal da tixa taxaw temm ak seeni tànk xam na ñu ñu ngi xeen Omar aras ci seeni mbagg seen joggare amna ku ne abu seyxaan hibban ibnu hatiyati nee na xamalatul hat samaniyatun seeni tank ñu ko taxal ci suufi juroom ñaar seeni bop jéggi na samani juroom ñaar seeni bejeen mu ngi melni ni ni seen taxawaay yaayam ca béjjënee nag ca la ñoo torox li duñ yëkëti seeni gis xamna na ñu ne it yëkëti seeni baat ndek le cene li leer yi leen sonal ku ñoo wax ibnu abi saybataan abi umama nee na bu ñooy wax faris la lak làkk suñ waxee lu dul sàbbal waaye nag bu ñoo xas ba de sàbbal bil xarabiya la ñoo wax xam na ñu ne seen wax ya mooy xuddusullaahi alqawi malaat xasamatu samawaati wal ard wa man xawlahu malaaka yi nekk ci kéew nga xaras te duñ xamalatul xaras yooyu nag seen lim ku yàlla xama ko ndax xawlal xars juróom-ñaar fukki junne sàppee nga fa di ko wër di ndax laa ilaha illallah di ko wax allahu akbar seen gannaaw juróom-ñaar fukki sa juróom junne sàppee nga fa taxaw fab seeni loxo teg ko ci seeni joggare yëgati seeni baat ci baatam laa ilaha illallah ak takbir seeni gannaaw mi atu alfin safin ñoom it teg nañ seen i ndeyjoor ci ne càmmoñ ya xamul kenn ku ci ne danga la ngay sàbbale bokk nag la sa morom da sàbbale wax nañ ne bindeef yi nekk ci kaw suuf ñoo fukkeel bindeef yi nekk ci géej gi bindeef yi nekk ci géej gi ñoo fukkeel yi nekk ci jaww ji yi nekk ci booleen booleen ñoom ñepp ñoo fukkeel malaaka asamaay asamaani duniyaa si amati Tidiane Seri moom daf ne booleen ñoom ñëpp ñoo fukkeel ñoo fukkeel malaaka yi nekk ci kaw suuf malaaka yi nekk ci kaw suuf ak li nga paas yëpp boo ko boolee ñoo fukkeel malaaka asamaan yi moom nag ba ba mu jeex am na ñu ne kuróob yi ne yi ñoo xamalatul xarsa ñoom la jaar la njëkkal xam ci am malaayka Eh, lu mel noonu nag kenn waru ko wax loo may ci ciment xam na ñu ne xeenu xaras sax xamut maj tëdd biir yi wéyu si kenn xeenuwul xaras yàlla rek ko ko xeen ca tëdd biiram ak siit su yu sabbihoona danañu sàbbal dellu naa ci yax ba xaala kaw ni yi bi ham di bi mbir mu ñoo làmboo seen cant ak borom ba dañuy wax ne subhanallaahi wa bi am di wa yoomi noonu danañ gëmin ñoom xamalatul xars bii ci yàlla imaanan haqiqiyan kaamilan loolu yàlla daf lay wanal rek foofu ngëneelal gëm waaye astaghfiruuna danañuy jéggulu lii la seeni ñeel gaa yi nga xam ne amanoo gëm nañ ndax liimaana leen boole te liimaan moo gën a dëgër ci liy boole nit ak leneen comme nag malaaka yi fa ñu gëm nit ñi gëm loolu tax ñu di jéggulul nit ñi danañ wax ne rabbanaa yow sunu borom wasita xëpp nga kulla sey in lépp la xëpp nga ko rahmatan ci yër mànde waxeel man ak ca xam limaamu sahraani yi wax na ni fii nga xamee yër mànde yàlla kenn xamul nu mu toll nee na lu tax rahmatu gim wax nii du jëm yàlla ja xëyru saat waaye nag wal xelm wasfa teel mu la mujjee limaamu Sahraani yi mu ne rahmatu xayru saat wal xel mu wasfa comme nag wal xel mu wasfa te jëm yàlla ji ku yàlla xamul nu mu toll melo bi eh, xam-xam ki dem melo mi itam kenn xamul nu mu toll rahmatu ki jiitali kenn xamul nu mu toll wasita hëpp nga ku la sëyin lépp la hëpp nga ko rahmatan ci yër mànde waxel man ak ca xam limaamu Sahraani ini rahmatu khairu sat wala hen wasfa danañ wax ne faghfir yalla nga jegal li la seen ñal gaay nga xamne tabo tup tuub nañ wa tabo tañu top sa la ko saw yoon waqiim yàlla na nga len fegal hasabal jahimi mbugalam safar rabbana yow sama borom wa adkhilum yalla nga len tabal jannati adnin aljana sahja ja haljana ji nga xam ne dëxal nga leen ko waman salaha ak ku tuub min abain ci seeni pàppa wa aswaajihim ak seeni soxna wa suriyaatihim ak seeni njaboot ku leen topp ci liimaan rek na dugg ci ñaan bi innaka naka yow yàlla anta yow rek alxasis yaare aji not alxakim ji daa ji xere ndax doo def lu mooy hikma waxiimu yàlla nga leen fegal sëyi ati mbugal yi am na ñu firee noonu xam nañu ne sëyi aati mooy yi yow yàlla wa man taqi koo fegal sëyi aati mbugal yi yow ma isin keroog bis penc ji wallaahi faqad rahimtoo yërëm nga ko wasaalika loolu la sa te mooy yërmandi gi ñu déggee ci faqad rahimtoo huwa moom rekk alfasu moo di texe alhans yum nga inna la seen naka gaa yi nga xam ne këfaru weddi nañu yàlla yu naa daw na des na leen joor ci sabara bañ duggee safara lañ sànj seen bopp ba lekk seen baaraam yi xam na ñu ne waxtu ñoo sànj seen bopp mooy falaatal bi seytaane waxe ne falaataloo moo nii wuloo moo anfusakum xam na ñu ne danañ sànj seen bopp fañ xamee ni ñoom min asaabi naar kii woote nag xasanatu jahannama la wala mu julli nii la danañ leen wax joor ne leen la maqatullaahi sànju yàlla gi mu sànj gi mu leen sànj ak bëru gën a màgg fuuf min maqtikum ci sànj gi ngeen sànj anfusakum seen bopp ndax istuduhoona baa des na xooleen ci làmmiñu lën bi yaw yi ak ñi wuutu lën bi yi mooy awliyaawu laay ak lën ak boroom xam-xam yi jub bañ leen de woo ila liimaan yi jëme leen ci liimaan ngeen bañ fa takk furoon a ngeen weddi yàlla xaalo ñu ne rabbanaa borom suñu amattanaa rey nga ñu isnatayni ñaari rey wa ahyaytanaa dundal nga ñu isnatayni ñaari dund tubaarkàlla nag nun ne nag la ko firee nun ne la firee amatana isnatayni ni ahyaytana isnayni dem na sax ne bana amatana isnatayni dee gi du ñaari dee ñetti dee la dund gi du ñaari dund ñetti dund la waa taaliba bu ñu paree seet ko ci isra yi fa taraf naa ñu tudd ñu nangu bi sunu bi naa ci sunuy bàkkaat tey de wax nañ ne lu bonoon ñoo ko def xam na ñu ni imatatu loolaa rey gu njëkk gi moo de fi seen digg yi jeexee dekkal gu njakk gi mooy dundal leen ci bàmmeel pour laaj leen rey ak ñaareel gi mooy gannaaw bu bu ñu la laajee bu ñu leen laajee ci bàmmeel ba pare dañ leen daa wax deeaat leen ba daa si lii ya ila qiyaami saa lii yaawu saan yee mooy i yaawum lil bansu mooy dekk leen ci ci ci ci dekk leen pour pour pour bansu pour dekki Nana dundal len pour dekki ci laye bi lu ëpp ci maw yi nak ci lañ laya ni mbugalam bammel xam ndax ñom saxal nañ ñaari de te genn degu njëkk gi musahadun fi dunia force nak geneen de dana ñew fil qabri ina yasirul maut la si haqiba mautan saniya fa hal loolu nga teg ah faxal ila xuróji ndax xam na faxal ndax faxal min sabili ngay jëli faxal min sabili ndax xam na yoon wenn yoon ci yoon yi woo xam ne danañ ko mën a sóobu ila xurójin jëm ci génn fii ñu ne ci safara dem ci leneen wasiida fi nafin wasib yi fajar na kii rattan kamali baax min nafar fa hal day jeexal lu mu dugg fa ndax xam na dara dara ci yoon waaw dara ci yoon ila xuróot saalikum loolu li seen bi àndoo ci naka luy mbir tey mbir isaa doxee ndem jaamaas na noonu nga koy firi allahu yàlla waa doo mbir mu da aji wéet kafartu ngeen wéet di wéetu yàlla waa indi sax ndem bokkaalees na bii ak yàlla leneen dominoo ngeen gëm lañ ko bokkaale ngeen nangu fal hukmu hàtte lillaay aji nekk la ñeel yàlla mi nga xam ne du hàtte loo mooy dëgg alxali yàlla mi da aji kowe alkabir yàlla mi da aji màgg huwa moom yàlla moomu la si mooy ka xam ne yurikum dana mu leen ayaat yi ay kéemaanam yi tegtal kenn yàllam ak nekkam de nekkam di wéeru ci lu looyu ya ndax na ngeen ci tegtaloo jëfi li nga xam ne loola lool seen xam-xam booba lool la laaj nasul yalla dana wacc la kum ñeele mi sama ci tukki ci asaman risqan sababu war moy taw sababu war non nga koy firé wamaay te sa wante du wadu ci lay yoy ila man rek ko ne bu dana delu gannaaw ci weddi jublu ci xalaat mbir yalla fa doo ngeen jaamu allah yàlla muxlisina mbir mu ngeen da way sellal ñeel yàlla ak diina diina te bu leen ci boole leneen wala kariha doonte sib na nag seenu jaamu alkaafiruna way weddi ñi yàlla yàlla moomu rafihu darajaat moo de aji yëkkateku yëkkati ji héegu waaye malaaka yalla momu moo di aji yëkkati xéeguwaayi malaaka yi waaw sul xars moy borom hars yul xi dana sànni min amri tukki ci ndigalam hala man ca kan xamni ne dana sopp min hebadi ci ay jaamam moy kim tan ci risala wa tabliq am akami li ko dalee ci maam sunu aadama bi ci yónnent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa dikk mosul ñàkk ci kaw suuf koo xam ne day tegtale yàlla doxoo bindéef bi jëme leen ci mujj ba tey nag bi fi yónnent bi jógee ba bis pénc ci taxaw jamono bu ne xam na kuy hooteel yàlla ci kaw suuf loolu la tax ñu wax ne xeetu Muhammad téeméeri at bu ne yàlla dana indi kuy yeesal seen diine ji ci dundal li ràpp ci jëfee alxuraan ak sunna liin sira xam nga daf ne yulqi roxa dana sànni roxa liin sira ngeen na waar na xuppe yow ma bi bisab daje ba sab daje waaw yow ma talaax jooju nag prix yu bari lañ ko firi na Abbas nee na mooy bindeef yépp a da daje ci benn pàkk maqaatil ne ki bind mooy da daje kiiñ bind su diinee li tiqaay ahli sama wa ahli lard wax asamaan ak suuf dañ ci daje may moon ibnu miiraan neen li tiqaay saalim wal maslum daje ki tooñ dana daje kim tooñ xam nañu ne déedéet jëf nit waaju ne da nga dajeeg sa jëf wamatallah yow ma bis ba nga xamee ne hum ñoom bari suunu way fàngaaral lañ fàngaaral mooy ku génn ci ndend kenn dara du la yëg garab du la yëg xur du la yëg montaay du la yëg laa yàq faa bu kerogee du nëbb ala laay ci sama borom minum ci ñoom sëy un dara seen dara du nëbb ndax bu boobaa suuf si sa safan laa laa nekk laa tere fi xeewa jën wala am tan keroog yo góor gi dana wax ne liman ana kan la ñeel liman ana kan kan la ñeexal al mulku nguur gi al yowma bis ni ki tey xam na ñu ne ko waxee moo de tontu boppam ni lillaa aji nekk la ñeexal yàlla alwaahid yaa dami ne kenn xaari muy notaakoon al yowma bis ni ki tey tuji saa dees na fay kullu nafsin bépp bakkan bi ma kasabat ca la mu fàggu buy yiw ak xay laasul ma dee togn nak al yawma di am bis ni ki tay do duñ wañi tiyaaba duñ yok mbugal inna allah nako so borom sari won hisab aji gaaw la ci regle bindee bi ndax dara du ko soxlaal ci leneen soxla ku ne mën top do sa mbir ta dara yakal dara du ko yakal dara wax nañ ne أخرجه ابن حميد في سوائد السند وابن أبي حاتم والحاكم وساه أبو نعيم في الهلية عنه رضي الله عنه نينين دناي هوتي aji hoote dana hoote kanam bis penc ne yaa ayyuhan naas atatkumu saa ñii dund dañ ko dégg ñii dee dañ ko dégg wa yunazzilullaahu mina subhaanahu wa taala ila samaa'i dunya yàlla wàcc ci asamaani dunya daal da wax ne li mënil mulki yawma lillaahi alwaahidil qahaar wa anfirum xuppee leen yow yonent bi yow ma laa sifati bis ba nga xam ne moo de aji jegeeñ si te moo di bis penc ndax kullu aatin aatin isul xulloo ba ba nga xamee ne xol yi la dal xanaa jëri ñu nga fa prox yi kaasimiina da way fees gàll ak njàqare waaw min tukkee ne ca wax sa janga kasaba fees na alxurbatu baat bi waaw bi ñoo rootee ci teen bi fees nag ndox mooy kasama ji waaw boo ko boo ko firéewal kaasiminal xaysa bii fees na lay firi maali saalimi ne déedéet ñeexal way weddi ñi yàlla way tooñ yi min hamimin benn jege ñaane wala xarit am na ñu ne hamim xarit lay firi ndax alonk gi xal kubéer la woon ñu def ko hamim mooy kii yitteewul sa mbir tamma waaw walla sa feen du jageen jenn aji tinu yu temps yoo xam ne des na ko tinuloo woowu noonu nga koy firee yu temps kook des na ko fir tinuloo amul yàlla mu yàlla dana xam xaayinata la yunni hurujug hurujug bët yi hurujug bët yi wama ak la nga xam ne tux fi dana nëbb ko sudóoru dënn yi li dënn yéen na biir yàlla xam na ko ci ay lamaayir yépp xam na ko xaayinata ji dafa nidu ismu faayil te bu la neexee nga def ko masdar di koy xaqibatu waaw moo tax ma firee ko noonu xaayinata la yu ne hurujug bët yi hmm. masdar mu laaf masdar mula fa'il amla wala suma borom tabaraka wa ta'ala yaqdi dana hatte mom bil haqq ci deug ki mi ya melo yima jang legi kiko mel yaqdi bil haqq wala seen gaay nga xamne tadoona da ngeen jaamu len min dooni ci ludul yalla ñom la yaqub doona duñu hatte bi seen ci tous mënu ñu hatte ndax jamaat lañ inna laa naka sama borom huwa moom rek asami moo di aji dégg albasir moo di aji gis sadaqallahu lansi wa balaqa rasuluhu alkarim allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima uxliqa walxaatimi lima sabaq nasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim salatan taftahu lana biha abwaaba rida wa taysir wa tuxliqu biha xana abwaaba sarri wa tansir wa takunu lana biha waliyan wa nasira anta waliyuna wa mawlana fa nima almawla wa nima annasir